waaw fëtt gauche teel a song xoolal du yàgg du yàgg waaw déranger xeex ko arrangé parce que daal xaw a lese gis nga gis nga non de Simba Simba day moytu Simba dese naa tàng wala bu tàngee damay bett waaw Simba buy kii day gëmm quoi waaw gisoo fiñ ko àgg fiñ ko àgg moo fa waroon a gisoo non Simba niruuma ku tàng niruuma ku tàng niruuma ku tàng niruuma ah, ku tàng day jeex wax naa la ko pom du neew day jeex bu jàppee rek ma xam fi mu jot jàppee rek ma xam waaw parce que damaa yàgg a seetaan kontaan lamb la koy wax de biñ koy jàpp si moom daa gëm waaw booy bi ñëw ba egsi waaw muy doo ko xool ma ne ko ñàkk nga bëre kat du gëm mais est-ce que relos bi feeñu non non non moom moom moom bi contact bi dal damay gis